dal leen ak jàmm mbokk internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax am mbégte mbégte bi xam naa ne yéen tamit am ngeen ko mooy jàmmaarloog Brésil door ko 4-2 mu nekk lu historique ndax Brésil euh, bii nu mel gëj na ko encaissé depuis si seen euh, jàmmaarloo boobu coupe du monde ñu organisé ko woon Allemagne dugal leen 7 buts ñun Sénégal ñu ñëw dóor ko 4 parce que aussi bu si fàttali rek euh, Cameroun da ko dóor Maroc da ko dóor Sénégal bu ko dóor woon coow day bëri ñun xamuñu dara Maroc dóor nañ leen ñii door nañ leen lu sax Cameroun te Sénégal mënu ko door débat boobu mooy am ay débat boobu alhamdulilah sant yàlla du du a am donc ñoo leen dóor 4-2 maintenant dañuy jaar vite fait VPN bi tout bi xamante tout temps dama kii dama leen koy wax euh, pour ngeen jàppale ma accompagner mu ngi avancé moo ngi avancé un peu oui gis naa ne am na différence am na ñuy dem si euh, VPN di si jàpp ci combat bi mais ni mu waree avancé dafa am ñu xam dañoo teel rek naan non xam seraan ko dem mais yéen ñëpp boo leen ko defandoo yéen ñi nekk Afrique moo tax franchement di ngeen may doole jamono bi tey jii heure bi normalement Portugal la ma waroon a fekk may def samay émission bu jaaree yoon incha allah mais gis ngeen ne loolu ay moyens la et je pense que comme ni mu leen an deux ans euh, franchement liggéey bi di ngeen ko gis feneen et que Coupe d'Afrique moo nekk suñu kanam ñëw na ba pare donc euh, foog ma préparé donc préparé wu bokk na si ñi nii di ma saraane VPN ak leneen lu xamante ne voilà dinaa jàppale man sama bopp ba incha allah suñu bërëb bu ma suturalee ma dem Côte d'Ivoire et espérer sax jël coupe bi donc euh, àndaale ak Sénégal yi dañuy dóor 4-2 lii di euh, lii di Brésil Aliou Cissé andi benn système 4-3-3 boo xamante voilà tey dama kontaan ci Aliou lenn rek moo ko waral man dama bëgg entraîneur bu xamante li ngay def kan du ko xam da ngay da ngay xalaat benn idée bu précis benn dispositif tactique bu précis bu xamante ne supporter lambda bi euh, chroniqueur bi du ko xam donc euh, da ngay bluffé nit ñi xam naka Aliou li ngay classé mu ñëw classé loolu ñu dóor ñu donc loolu mu métti woon ma lool parce que entraîneur souvent. équipe parfois équipe type dinañ ko xam ne parce que équipe yu mag di nga xam ne lii ak lii la ñu en général quoi loolu loolu du problème problème bi mooy parfois da war a jéeg saay bële fa ñëw rek génn foo xamante ne kenn xaalatu woon xam nga classement bu muy man muy sama morom kenn xaalatu ko woon xëy na am na ñu siy trouvé muy lettre yi muy xam na ne Coulibaly ku may tudd dina mais par exemple mettre le milieu terrain bu mu mettre xalaatu ma ko woon donc ak Modou Diop dèjà la teg ci camp yi euh, défense mu tegal ñu Kalidou Coulibaly ñaxate latéral gauche kii di Ismaël Jacobs latéral droit bu xamante ne euh, bi lu mu liggéey lu mu travail je pense que joueurs yëpp wax nañ ko mooy dañuy def bloc bas jéem a dans les transitions jéem dans les contres et aussi bu ñu encaissé bu ñu déstabiliser suñu suñu kii et que Aliou daf leen waxoon ne bu kenn bu kenn nekk sa coéquipier di ko kaas même bu bu ñu encaissé continuer di travail continuer di jàppalante seen moom je pense que franchement loolu euh, solidarité boobu mu am jàppalante bu place yi gis nga Pape Gueye lu ñu ko profondeur noonu loolu ñu travaillé la Pape Gueye ñu ko daan profondeur muy aj bal bi rek un contre un yi dañ ko travail bu baax euh, bloc bi ni muy demee ni muy yéegee ni muy yéegee bloc bi lii yëpp c'est travail du moo xam souvent dañuy wax ne sélectionneur la wax ak entraîneur entraîneur ñoo ëpp sens sélectionneur yi je m'explique entraîneur day nekk clubam di travail chaque week di travail di travail pendant un jour dañuy déggoo jour dañuy miinante dañuy am affinité dañuy am automatisme moo tax ki nga xamante dafa toog këram jàpp ne li muy gis man société li muy gis man euh, c'est pas moi baaxal mi ni wala beneen équipe boo leen xam bu mag loolu mooy ñëwaat club moo ñëwaat sélection du benn sélection boo joué balaa ngaa joué daa yàgg moo tax pour une fois Aliou Cissé am une une semaine de travail bëgg mettre na en place li mu bëgg def déjà que club rek am na ñoo xam dañuy kaas bu fekkee dañuy joué tey jii joué mercredi bëgg joué samedi parfois jou entraîneur dañuy kaas moom mi faral Marseille Igor Tudor loolu doon wax danaa aw ma de travail parce que à chaque fois que mu am semaine de travail après weekend bi si topp day am ndam parce que li mu bëgg a travail bi koy travail moo tax Aliou dafa am une semaine de travail fii annexe donc loolu mu doon liggéey moo am moo moo am moo ko may lii nii tey donc ñu koy wax félicitation lenn rek la ñuy pointé du doigt si Aliou Cissé lenn rek mooy changement yu yéex yi maanaam la fekk Nicolas Jackson à 20 minutes boo ko dugaloon saa day andi tàkk-tàkk vu waa bologu brésilien bi dafa yéegoon ñu bëgg dugal bii coûte que coûte égalité boo fa dugaloon benn Nicolas Jackson balaa Marquinhos wala Militão du yéeg dinañ réfléchir deux fois avant ñuy yéeg parce que xam nañ ne am na benn boy bu xamante am na vitesse am na percussion donc boo ko dugaloon minutes yi doon def dara et aussi euh, l'entrée de Krépin Diatta moom Mory rapport à ça man nga bii noo gisee li mu ko encaissé parce que man dama gis ne sur le premier bii par exemple dafa génn lu bëri loolu moo tax tête bi lii ko après sama copain bi na ma non même moom ngi mesure 1 mètre 93 94 mu a ma genre bii yooyu bal bu ñu wëccax nii nga bëgg ko claquer c'est toujours difficile après loolu ma expliqué sur le deuxième bi ma dama gis ne dafa manqué présence par exemple un Edouard Mendy mënoon a imposer ci bal boobu donte di élaborer noonu g si Sabaly yi Jacobs si Koulibaly nii loolu moo ko daax élaborer quoi xam nga euh, euh, kenn sonal ko noonu benn arrêt dafa def mooy tapé bi mu tapé noonu donc mënoo wax dara défense bi Kalidou Koulibaly ñaxate Jacobs ak ak kii euh, loo leen mën a wax Sabali très intéressant très fort Sabali dem yàgg naa ko wax samay vidéo ku yàgg seetaan Sabali man fàttaliku mu match Sénégal boo xam dafa ñëw football ma am déception même contre Angleterre amu si moom déception ban déception ngay am waaye day joxe ba day joxe ba bëgg dee te man ragaloon naa d'un côté ragal ma d'un autre côté par rapport parce que ma seetaan ay vidéo yu xam ne koy bëgg rey da koy bëgg rey ay maillots équipe ma ne way kii mooy suñu défenseur mais bu ñëwee Sénégal day transformé wu solee maillot bi tey Sabaly loolu la doon na jeeg sa doon na jeeg Vinicius Vinicius fële Espagne mais bu Souleymane Ibn Sall du Sénégal bul yaakaar ne même Sabaly bi ngay am un autre Sabaly ngay am et que je trouve que Kalidou Koulibaly ak ak ni mu ko doon jàppalee ñu koy esca ñuy escalier Vinicius lu baax la saa bu ko tëccee nii maanaam Sabaly dàqa ji ko tëj bu bëggee déborder ne day day day élaborer ci côté bi rek gars yi saa yi sës ko pour mu passe pour da ngay passé Sarloon Koulibaly ñëw donc noonu la ko doon marqué à moo tax mayu mayu a inquiété Sénégal lu xam nga Rodrigo bu fu nekkoon sax ñu noo wax waaw mais ay Paqueta Guimaraes seen joueurs yu ñu teg mais ñooñu ak suñu joueurs ñoo bokk championnat yi football la de saa yu football 11 11 donte Brésil voilà am na technique qualité technique ressource de balak yooyu noonu mais à part pour man kii un joueur de mais extraordinaire amul benn latéral droit bu mu mënul wala benn latéral gauche. li des football la rek xam nga donc euh, Sabale kii moom nice moo waxee ñaxate ñaxate match bu hyper intéressant la def moom match dans surtout si duel yi ay duel am doon gagné xam nga moom li ma doon gis à l'entraînement loolu moo traduit xam nga ñaxate ak Abdou Diallo boo leen bëgg comparer da nga naan Abdou Diallo peut moo gën a am na la dans les day yéeg ba si kaw mais keneen ki moo gën a nekk défenseur à l'ancienne maanaam tout le temps duel. Richard Lisson boo ko bëggee sonal foog nga koy nga koy sës c'est un gars xamante ne c'est pas du du du du du Firmino du décorosé si ginnaaw du du Benzema daal joueurs yooyu dañuy xam dañuy euh, décorosé joueurs yi nga koy gagné boo ko gagné duel yi rek dina wax attention man tey am naa client te démb saa rek woon ne am nga client tey pendant que Kalidou Koulibaly ak Sabaly ñuy lijjanti Vinicius jàppal na ñaxate moo tax Richard Lisson gisoo ko si match après duñ ko génne mu dem toog donc ngan gan ni match surtout peut être benn action profondeur boobu mooy bi xam ne mënoon nañu fa dóor 2-0 Sall suñu tey boobu nga ko mën a mais à part ça dans waaye dafa saf sànq dafa saf de instant yi Abdou Diallo am na vraie concurrence nekkatul amatul doublure de ñu naan non ñaxare ne toog si banc bi Abdou Diallo concurrence la qui est le meilleur en club mooy mooy ñëw. saa yi wane na vrai défenseur la Angleterre la nekk day dajjiwaat dafa tàng jër ñaxate Jacobs Jacobs à part action bi kam euh, kii nii Malcolm teggi noonu mu saarankaare noonu il a fait son match à part action boobu noonu je trouve que défensivement il maanaam reyante na euh, ndax am na complicité ak Sadio Mané je loolu luy ñëw la maanaam li ñu li Saliou Ciss ak daanu defan Sadio Mané ñu déggoo ba ma daan taxaw naan pour avoir un excellent Sadio Mané da ngay da ngay soxla un bon Saliou Ciss je pense que Jacob sur le plan offensif man inquiété wu ma pas plus que ça beaucoup de masse bu ko amee ñoom moom ak Saliou moom ak Sadio Mané da gis ay affinités parce que deux joueurs de ballon fu ñuy daje mën nañu football ensemble donc man loolu sama xel dal na si. au niveau de notre milieu terrain fa la coow yu nekk fa la débat bi nekk mooy Nampalys Mendy Pathé Ciss ak keneen Nampalys Mendy dans même ligne ah c' est que Nampalys Mendy mooy joueur yi xamante ne voilà man voilà quoi avec le ballon man du ma mës a tiit sans le ballon laa daan faral di tiit que avec le ballon parce que avec le ballon mooy ñi xamante seen match bu jeexee quatre vingt quinze pour cent de passes réussies nañ am maanaam lu ñuy am déchet technique du bëri. à chaque fois dañuy dañuy jouer latéralement dañuy jouer ci côté yi dinañ jouer des passes qui cassent les souvent nag dañuy jox ñeneen ñi xamante peut-être ñoo leen gën a jige vingt derniers mètres c'est ce moom du fi nekk parce que boo xoolee tey moom moo jouer six ñoo am deux relais parti six keneen ki Pape Gueye boo xoolee ñoom ñaar ñoo ñu gën a nekk ci ci ñoo gën a nekk ci kaw mais boo xoolee moom zone zone am zone am du si jóge trop du si jóge mukk de Koulibaly boo ko joxee mu jox Pape Gueye il joue simple nag fii ba suba mënoo moom euh, rien à dire donc keneen ki xam dama koy wax c'est plutôt kan ak kan euh, Pathé Ciss Pathé Ciss sur les premières minutes voilà quoi maanaam soit agressivité baax na mais agressif bu modéré bu xamante ne voilà dafa ànd ak xel parce que même penalty boobu ñu compté après ñu ne aujourd'hui penalty mais mënoon na def nànk mënoon na fa jur penalty ak zone bi ñu ko zone mais à part ça il a fait son match Patrice match bu baax la def tey moom awma leen lu ma mën a critiquer pas Patrice na simple gagné na ay do doon na euh, am na solidarité joué na match am quoi ma fi def fi match bu doy waar ba ma naan maa ngi maa ngi bëgg a dee mais def na match am quoi mu amoo dara loo ko mën a wax. keneen ki di Pape Gueye je trouve que Pape Gueye mooy suñu milieu terrain gauche. moo tax loolu da nga mu nekk benn profil bu rare boo xoolee milieu terrain yëpp ay droitier lañ ñëw moom dafa nekk benn profil bu intéressant pour Aliou Cissé parce que da koy jox beneen beneen kii beneen euh, beneen kii xam na laa ko mën a expliquer bu tegee benn benn classement kooku mën na ko andi leneen lu bees par rapport ak ñeneen ñi le fait mu nekk gauche c'est intéressant pour le trio Jacobs moom ak Sadio Mané ñu dañu nekk benn zone bu xamante ne ah, ñoom ñett a nañuy jouer à une touche de kii dribblé ñu jox ko mu xel maanaam Jacobs moo tax lu hyper intéressant la donc man pour man Massam def na que juste li ma gisoon à l'entraînement ñu doon